أحمد المختار أديب السمام الإمام dama bëgg ñu teg micro yi ñu doon xaar accident seen imam libaas Ousmane Babacar ne moom seen imam Alassane ñu ngi lay teeral jàmm di la dalal jàmm ma bëgg ñu teeral ko lii dalale lekko lii ci sunu première année bi naan li ma mu bëgg a tekk daal ak ak taalibe yi yàlla na jëm kanam ak mu na raw suñu njort li kay fekk nag mooy léegi muy yëg lu màggal yàlla na delloo bi naan li ma na ngeen ma baale waaye pour nga wan baax ci lii may waaj def laay xam donc ñun ay lay moo la ñor su góor nag ak yéen dañ koy xaat nii jigéen nga ne li ngeen ànd góor pour ñëpp ñu ànd ñëpp ànd tant que sama bàyyi li waa sëngu rek ma xam ne kon àggul ci yéen am na. alaahi wa salaam. bul xam ne yaa ngi saar daa yegg defoon saxal fi wetu yàlla mi ngi la sibaatu la ilaha illallah naan mi dee fi yow leen ñetta feen naa yàlla ma yónni jaamu leen ngir feeñ na bàyyi maam maa di yoo mi ngeen doon seenu ñëw naa na ngeen tub si te bañ maa noonu yaa ñay werante baat ba ñii naan mooma ñii noonu moom ñii ne ko dem waaye ina wér ka ñàmboy na mat maa seen maam bu del seetal te deewul mooma bu jox ko moo gën a muy maye man mi maa sa turandoo di def lu war tel gaa ñu daa mel ma ni ku ma ci gëstu ma dàgg si maamu li maamu ka doon suuf fee mu dee sa waxtu wa boo doon lu yëpp lépp loo xew sa waxtu wa فساي صبي سيدنا الإمام بيرك كلام قرأي نمي هاي باي لاي نمي

صحي عجبا وجوهي وسكني حرب لجيش ساخا عند المسيح ياتي مختطف صار هارب عن اسود جميل لسنة الحق لكن طول مدته الى قلوب جميع الجنس بشرف فصار مسلوب على كل هذه سنته اتركها الارض في الصعبين كل الخير صدق على الإمام المهدومة في كل محل بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم mbokk yi tedd yi alhamdulilah rabbil alamin leetar daal bu mu bëggee mu gaaw day am temb suba ba léegi ñu ngi ci place parce que noonu macha allah tabaraka alhamdulilah rabbil alamin waaye nag sër bi moom li muy rafet rafet rafet bu njàng bi ñëwee la am la am biir waaw sër njàng bi rek day jël moom rek ku soo wax na ko ni nee na leen man juum daa rek dañ ko muuree xale bu ca kanamee ngeen xam ne kenn soxla wu ma woon xale la ñu soxla kon nag Alassane li mu fi sotti ci ngoon ci alxuraan ak waxtaan dana ko yàlla def leer saa bu def addina bi ci barke bàyyi leer boromam ñaanal nañu yàlla daaw na yàlla dajale fi ji talaat nga ñëw toog uuf njaboot bi yàlla defal nañu ko yàlla nañu fi ji talaat déwén mu ubbilaat la nga ji talaat njaboot bi ñëw uuf leen nii sama maam sama bu baax ja tey nañ yàlla de Sidi Abdoulaye dafa daal wax naan nag boo bëggee waxtu boo weesu da ngay jiital doom ja fekk mu am gan ñu yóbbu leen ko ko mu jaar sama baay dem ka dafa demuma noonu ànd dem jiite bu ñu demee boo toogee sa baay xam ne yaa ngi toog lu ko wax kon naan mu dem waaye yooyu moo ñu di uuf sa njaboot kii donc fii nga xam ne loolu soo ko xaj dina kii moo gisaat fii la woon dañoo ëmbal sa njaboot ñu toog mën na am boo tàllee la yàlla fan ko ñu bootu sa ginnaaw yàlla rus la sa appartement yàlla na ko yàlla defal wante bàyyi la yàlla waxoon kon nag ñu ñaanal Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam njaboot la ñu jàng Fatiha ñeent fukki lixlaas ak benn salaatu ala nabi ñu def ak diyaam ak mboolem njaboot góor ak jigéen mag ak ndaw teel teel a ñor ak ñu ñor ñu yor am na jàngaat Fatiha jàng fukki Ixlaas ak benn salaatu ala nabi ñaanal ko suñuy néew ak néew bi leen yëpp naa leen tànn ak ñoom dafa ci yenn suñu góor bu mag Baye Abdoulaye Fall lu yàlla dolli leen ak yaa rabbal aalamiin amiin amiin yal na yàlla sànq wax dëgg yàlla ñoo ne ñaan gi deful ko ah dafay fàttali léegi ne moom sax dama day yéen a toujours ñu ñaanal saaba yi nga xam ne ñoo àndoon ak góor ga Seydina Limaamu alayhi salaam yal na yàlla doon seen leer doon seen xeewal te yeesal ko ñu jàngal leen Faatiha fukki Ixlaas ak benn salaatu ala nabi yéen ixlaas nga fi salaatul fatiha jiital ci sunu xalifa yàlla yàggal ko fi te mu amee wér wasaale ci yeneen réew mi fi yàlla san sotti jàmm wasaale ci yeneen nag xam ne béykat si dinaa di maamu yëpp te sunu bàyyi yàlla ko del seen fan te defal yàlla aar leen te aarul ci seen yàlla musal leen te musal ñu seen ginnaaw yàlla dimbali leen boppam ci saa yi ak ci baati suñu barke maam defal ñu ko ci seen ginnaaw ñu jàng ñetti fatiha ak ñetti ixlaas ñetti salaatul fatiha asali ci yéen suñu aji bi yëpp lépp lu ci aje waay yàlla ko yàlla faj lu ciy jàngure waay yàlla na ko yàlla saafara barke bàyyi laay borom آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب آمين لا إله إلا الله محمد رسول الله coono yi waaw kon ñun ñëpp sëriñ Seex ne loolu waaj ci sunu baay nee na fii daf fi ñëwoon pour ñaanal réew mi ñaanal moom ñaanal xalifa yàlla faj sunuy aajo waaye moom mii nag Serigne Cheikh ne yàlla bu ko yàlla na yàgg ak diine ji wax leen amin yàlla na yàgg ak ji bu ko defee ñu bañ ko déranger bu ko defee ñu dox tànk yi ci kaw mu fekk na fa jiite lu takkusaan bu noppee wax ak jaam ñi dama daan yàlla na ko yàlla jàppale ak borom sanga bi nee na bu ñuy yéeg ci kaw bu ñu waxtaan nañu tudd yàlla waaw ñu tudd dañuy tudd yàlla comme ni ñu koy defee bu ñuy dem jàmmalaay ñu tudd yàlla ci yéeg waaw waaw dem si nag dem bu doon ñëw

bu toogee nag dellu ginnaaw voilà voilà Thank you. Sabah bana ben deli günah. Ben deli günah. Sabah bana

maa ngi lay ziar quelle société لا هذا لو رجل Thank you. fii comme ni ko sëriñ Cheikh di wax. ngir ñu def buy fekk fii tubaarkàlla incha allah ana Seydi Assane ak i mag ñoom ñu ngi fi ana kii jaare mais ñëpp ànd ak ñoom. wala أشهد أن لا